Euh, tey jii dañu am mbégte gannaaw bi ñu dajee samdi bële passé dajale waa Tivaouane yëpp waxtaan ak ñoom informé leen nii Sonatel ren dañu ñëw ci lu jëm ci wàllu cetu dëkk bi pour ñu jàppale ñu ci bu baax a baax ñoom dañu am benn programme bu ñuy woowee ànd defar euh, sunu gox mu nekk programme bu am solo boo xam ne xam naa ne ñoom am nañ yéene yi mu continuer te ñu ngi leen ñaan aussi mu continuer bu ñu jógee. ci phase pilote bi nga xam ni Tivaouane moom moo koy clôturer nekk juróom-ñetteelu dëkk boo xamante ni bénéficié wu na ci programme boobu. ñu leen di remercier bu baax a baax ndaxte ku bëgg a jàppale Tivaouane yaakaar naa ni mënoo tànn jamono bu gën a baax jamonoy gàmmu ndaxte dëkk boo xamante ni li fi nekk ci ay nit xëy na mi ngi toll ci soixante dix mille wala quatre vingt mille ñuy recevoir ci lu toll ci fukki fan ak ñaar bi burdu bi commencé ba bi gàmmu bi di jeex lu toll ci ay millions ngi nit. kon déchets yi nga xam ni moom la ñoo ñu di produire commune bi rek attanu ko dëgg la gouvernement du Sénégal mi ngi ñu ci doon jàppale mais ñoom dañoo ñëw ren jàppale ñu jàppale boo xamante ni nii fi ñu doon yem ci wàllu cadrage dinañ ko weesu bu baax a baax ndaxte ñun rek bu ñu ko bëggoon a def mairie li mu laaj ci wàllu jumtukaay li mu laaj ci wàllu matériel ak organisation xëy na duñ ko mën mais ñoom nag ñëw nañ. gannaaw li nga xam ne jotoon nañ ko am ñu dollu ñu lu mat ñaari millions ci wàllu matériel bu sew ay brouette ay pelle ay bale ay râteau mais yamuñu foofu con ñoom aussi defar nañ ay poubelle poubelle yu ndaw yoo xam ne dañ ko teg ci mbedd mi loolu nag li ko wund mooy bëgguñu rek bale dëkk bi dem jóge fi nit ñi delluwaat ci la ñu nekkoon naam sax Tiwaawan mën nañu wax ni ak PNGT ak UN ak UCG mi ngi set mais dañu bëgg léegi mu nekk réflexe c'est-à-dire que ñooñu ñu wàll ñu wàññi seen liggéey ba nga xam ne tilimal bi dinañ ko wàññi loolu nag li ci jiitu mooy nit ñi ku lekk sa gerte caaf wala nga naan sa ndox ci mbuus wala nga naan sa café ci gobale au lieu nga koy sànni ci mbedd bi ñu koy balewaat ñoom Sonatel tegal nañ ñu ay poubelles yoo xam da ngay ñëw nga dugal ko ci mooy jël déchets yi nga xamante ni diisuñu UCG ñoom dinañ fa jaar régulièrement di ko récupérer di ko tuur si seen si seen biir poubelles yi kon ñëw nañ liggéey bi yaatu na lu ñu am si moyen du doy dinañu fi ñu daanul yegg ci wàllu setal dëkk bi ñu yegg fa mais surtout dinañu permettre opération defar suñu gox bi ak waa Sonatel dinañu permettre waa Tivaouane ñu fexe ba ñu am réflexe continuer di am réflexe set parce que di nga xeeb benn gubale boo sànni mais bu fukki nit sànnee téeméeri nit sànn day daal di nekk mbalit réflexe yooyu nag bu ñu ko ci defee day conforme ak li nga xam ni suñu guide religieux yi ñu ngi ñu koy jàngal bés bu ne mais day méngoo ak diine ji nga xamante ni moom la ñu bokk muy diine lislaam kon daal am nañu yaakaar te nag li ëpp solo ci mbir mi surtout mooy dinañ bale avant mais surtout après gàmmu gi loolu casse-tête la woon pour maire bi casse-tête la woon pour comité d'organisation bi mais Sonatel nee nañ du ñu yem rek ci ànd ak ñun bala dëkk bi avant bu buñ ci jógee ñu ñooy tànn bés bu ñu neex li ñu defoon avant gàmm gi ñu defaat ko ba Tiwaawan difficulté yi nga xamante ni daan nañ ko am démb ak bën ki démb ren ji ñu tàggoo ak moom muy dëkk boo xamante bu buñ jógee ci gàmm gi bala ñuy egg si gàmmu Njaasaan wala buñ ci jógee rek dëkk bi daal di set wecc dellu na mu meloon poubelle yi nekk en place population yi am ay réflexe yoo xamante ni tilimal bi sax dina wàññeeku ba liggéeyu ñuy bala tamit dina wàññeeku waaw euh, loolu nag day ñëw di sofu ci programme bi nga xam ne gouvernement du Sénégal am na ko ci cadre programme national de gestion de déchets mu nekk programme bu am solo ñuy féliciter suñu xarit Ibrahima jaañ bi nga xamante ni moom moo ko yore ak collaborateur am UCG yi nga xamante ni tey monsieur Wade moo leen représenté ak monsieur Mbaye bi nga xamante ni moom lañu dénk fi nga xamante ni mooy Tivaouane ñu ci def liggéey bu am solo ñu nekkoon nag ci phase pilote. mu nekk programme prioritaire de propreté muy 3P bi nga xam ni ñun day bi ñëwee jël maire yi fekk nañ municipalité ba bariwuñ ay jumtukaay mais Tivaouane ku ne gis na ni set na ndax collaboration boobu wante li ëpp solo ci loolu mooy programme bi jël na lu ëpp ñeenti milliards yoo xamante ni daf ko jagleel Tivaouane loolu nag li ci ëpp solo infrastructure bi mooy dafa war a créer benn chaine de valeur ndax nee nañ mbalit mën nañ ci créer ay richesse ñu loolu pour ñu def ko il faut ñu am benn infrastructure bu ñuy woowee centre intégré de valorisation des déchets maanaam centre boo xamante ni dañ fa war a fekk mbalit mi jox ko valeur créer ci ay emploi loolu nag ñu ngi sant yàlla ndax wax nañ ñu président de la république bi nga xam ne moo war a inauguré mairie bu bees bi nga xamante ni tabax nañ ko fii ci Tivaouane war na def pose premier première pierre bu centre euh, intégré de valorisation des déchets ci visite bi nga xamante ni mi ngi mi ngi koy waaj a def Tivaouane ajjuma ñu profité nag si occasion bi woo waa àdduna yëpp woo waa Tivaouane nii ñu mobiliser woo ci wàllu mbale mi ku si nekk. sooy ñëwaat nga indaale téeméeri nit ni ko sëriñ Abdou ñaanee ci ubbite burdu bi ñu teeru président de la république tatagal ko ndax cër bi ko yàlla dénk mais tatagal ko surtout ngir li nga xamante nii mi ngi koy def Tiwaawan te noppeegul jërëjëf